laali ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre aussi mooy. Mhm. moi je comprends les gens qui appartiennent à des à des partis politiques. Mhm. Mhm. je comprends ce monsieur tant euh, et tant d'autres ah. seen seen ils sont affectés dans leur chair. je comprends mais néanmoins il a exprimé. waaw waaw mais néanmoins néanmoins nous dañ fi tok pour wax. pour sénégalais xam deug deug li am. loolu rew mu né am nga sañ. ci ne doomu rew yépp ay am waye ku bëgg dara fi ngay jaar fi ngay jaar mooy ñak ñak gi ma wax parce que aduna ci ñaar lay dox li nga bëgg mu am. Mhm. li nga bëgg mu ne ak li mën a ne. li nga bëgg mu ne faw mu jaar ci li mën a ne. il faut se donner les moyens gis nga France boobu ñuy wax France boobu ñuy wax. Mhm. soo fa nekkee am une double nationalité. Mhm. xam nga service militaire en France c'est obligatoire. te français yi ñoo koy def. mais tey bu fekkee tu es français et suisse par exemple je prends un exemple. nga nekk en français dem Suisse nek Suisse. ce service militaire obligatoire nga war ko def nga bëgg ko def en Suisse. Mhm. mais da ngay def une déclaration jox ko l'autorité compétente ñu door la ko mëna accepter dafa am foy jaar. Mhm. donc aduna mo teudé non ay garde fou la. Euh, te euh, te état tamit dañ koy organiser nak c'est normal ne faisons pas l'erreur. Mhm. Obama a été Obama est exclusivement américain moo mu prétendre à la présidence américaine. même s'il a des origines. non avoir des origines mais les origines c'est autre chose. Mhm. ñun Taï, euh, Taï, bu mhm. mais amna eh, ils ont des origines Il euh, euh, y a des sénégalais qui ont des origines capverdiennes. ça n'a rien à voir. Mhm. mais sur le papier. sur le papier bu Obama Kenya il a une la nationalité Kenyan à côté. Obama ne serait jamais président de la République des États-Unis ça ce qu'il faut comprendre Moi, mhm. euh, on peut pas on peut pas être d'accord sur tel cas et ne pas l'être sur un autre tey Karim sa déchéance Il wala bok, Nyak gi mu ne daf koy sa nationalité sénégalaise mhm. mais su ko défend depuis 2020 ou 2021 mhm. ou 2022 mais on euh, a décret bi du tok pendant 4 ans d'origine ou 2 ans déedéet parce que ni mi gaawee nii kon noonu la naroon demee. mais entre le 23 octobre et le 17 janvier. man je ne comprends pas comment l' administration française s' est attelée à ça est ce que aussi ah ñoom dugaluñ ci seen loxo. est ce que laa wax. on est en politique parce que parce que tey bu fekkee ne ñi ñi bañ bu fekkee dafa am ñu bañ ñu bokk laa je mm. suppose. bu mm-hmm. fekkee dafa am ñu bañ ñu bokk. su fekkee Amadou Ba ak ñam àndal bëgguñu tey Karim Wade bokk. Mm-hmm. te jàpp nañ ne am ci pexe dama ne su fekkee laa wax. Mm-hmm mais euh, appareil politique état mais mën na lëkkaloog benen état. Mhm. ne ko kat kooku wala benen état sax informé ko ci lu mu xamul. parce que tay man ba tay je suis convaincu que ne ki songu li mhm. détail yi yëpp ni mu leeree. Mhm. ah mais liguey na ci ku ko ko xam. ko wala ko ko gëna xam. donc l'État français peut peut bel et bien euh, être complice ci ci ci li dal Karim Wade mais lu mën a nekk la. lépp mën na nekk mais parce que 23 octobre. mu mhm. mu déposé. Mhm. bu fekkoon ne tey ça concerne un français boo xam ne et ça c'était pour l'intérêt de la France. Bah, eh, du demee nii mais day gaaw. du demee nii du demee nii mais day gaaw. du demee nii mais 23 octobre ba le 17 janvier. Mhm. nga door a génne un décret sachant si bu appuyez sur la loi la loi n'est pas rétroactive comme ba déposé, déposer déclaration sur l'honneur conseil constitutionnel basé au ci ne kon la mais gis nga sew sewu loi bu ñu koy wax ku mel Ablaye c'est une insulte parce que tout le monde sait que Wad c'est un juriste mais tout à fait du c'est un juriste Mom xamna sew sew loi yi nako xëy Ta bu toogee mu ne euh, il s'attaque au conseil constitutionnel fu leer la ko teg parce que sànq maa ngi wax ne nee nañ nga ne ma non mënuñu ko dissoudre mais bu ko waxee mooy que dafa am fu muy waxee